ku la sampu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Mati Leye xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro di ci rendre hommage Serigne Assane Salam Serigne Abdoul Khabir Massamba Mbacké Serigne Saliou Touré Mame Bou Mohamed Kounta Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mbacké Soxna Serigne Cheikh Mbacké Modou Fat Khari Serigne Bassirou Mbacké Mor Serigne Cheikh Fall Ndiaye Mbeng Cheikh Mouhidine Samba Diallo magistrat Serigne Ahmadou Ba président Iba Kole Bao Serigne Amar Birane Thiam Bara Amar Djemoul Alhaji Alé Ndiaye Alhaji Dame Diop Mansour Alhaji Ndiol Diané Alhaji Serigne Soxna Mame Faty Mbacké Fall soxna Ndeye Guèye Adja Ndeye Fatou Seck soxna Bousso Ngom Adja Mame Fama Diop soxna Momi Dali Guèye day soxna Mbacke Moustapha Massamba soxna Endo Mbaye ak yeneen kilifa bés bango 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacke samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci 6 ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa raaluhu ñeen soodun allah soodun allah la daa masaabi yu fee du jaa sëriñ kullun su jaa umra zesil ko vrai sëriñ fallu yaa di samtu soo fallu yàgg nga daal nga lambi soo daal noo siyaare yaa samtu soo fallu fallu yàgg nga daal borom ndindi nga lambi soo daal noo siyaare sëriñ fallu nag kuñ ne mooy sa sëriñ nga yaakaar ko té ber ko yow boo doon làmb daj nga boo doon jiir te jam nga ndax bi mu doonee doomi sëñ tubaa ba noppi daa liggéey lu tax mu doon murit saarix dipp taalibeeb sëñ tubaa doomi sëñ tubaa yi jagle la yàllaa koy defal nit waaye sëriñ Fallu liggéeyaat lu tax mu mën a doonaat doomi sëñ tubaa liggéeyaat nag ba lakk ngërëmal sëñ tubaa ànd ak mo Modou Moustapha ci liggéey ba xëy nag di sëñ tubaa yeggale jumaa ji miir armeel yi ubbi jumaa 763 ne maa ko tàmbaloon maa ko àggale maa koy jiite mag fi man fi raw fi yorub dokk jiite jumaa ci man ngeen koy mujjee gis kooku mooy sa sëriñ di maami Cheikh Bamba mi toog waaw na mu wax ni nag sëriñ bi soxna Sooda Siise soxna Sooda Siise di kenn ci yow di soxna Abdou Aziz Diop mi nga xam ni seeni diggante dafay yàgg ndax monsieur le ministre Omar Sarr ku ko xam-xam ko Abdou Aziz Diop Abdou Aziz di gor lool bi mu neexee mook Omar mu metti lool tar mu ànd ak Omar ba mu xëy yàlla indi teraanga moom ak Omar asgor nag bu nee bu nee lii mooy sama garab gi da koy topp ba ca doom ga sama garab gi da nga koy topp ba ca dóom ga loolu mooy gor as gor du jàpp di bàyyi as gor du fakk jëf as du fàtte démb waaye nag Abdou Aziz di jàmbaar soxna Sooda nag moo yabal soxna Ami mii ngir ñoom ñaar dañuy kenn rek soxna Sooda Siise ñu gën koo miin ci daso kuti rek diw la ca aju yëpp ak ci rek Sooda ngi yëpp moom Sooda daso universel mu boole kook soxna yayaam yi ak soxna ndey mati ak soxna nday mari ñu ànd ak moom liggéey bi ami mii nag day kenn ci soxna sooda sooda jàpp ko loolu te téye ko muy diisoog moom di waxtaan ak moom sooda dana ko ami nu ni nu nu niy def loolu nag nit ku baax mooy jege ku baax di ko xelal lu baax ndax ñëppay laaj xalaat Cheikh mu Moustapha Mbacke sa maam ji daan wax naan bu ma juumee rek jàpp leen ni mbooloo juum ndax bala maa jëf damay diisoo waaye yow mi muy diisoon ngay nit ku baax soo de jàpp Serigne Bass lool Serigne Bass soo da wax ni da ko jàpp da nga koo téye ko lool te fonk ko lépp lu mu ne nga ànd kook moom moo ak borom këram moom nag Mbacke nee na moo amul sa pay bu sañoon bis bi tàmbali ba fee saa boo gër soo gis ko luñ fiy defit ñëpp te seen loxo moom mu def ko ndax Soda nag day jàmbaar di murit te seriñ Saliou rek la bëgg loolu di loo xam ni lu àddina bépp maa xam ko bëgg sëñ Saliou nag doy na ndam doy na honneur nee naa ko am nga loo xam ne yaa ko mas a am te keneen doot la dab 2004 la sëñ Mourtala dem 2004 ba 2007 sëñ Saliou képp des fi doomi sëñ Tuubaa yilif ñëpp doon sëriñu ñëpp di bàyyi ñëpp ku mu yónni nga dem wootey tool liggéeyloo ñëpp doon doon doon na bu samaanu jamono doon na xawsul waraa dara jooju nag moom la ko yàlla defaloon yërmande ji bari lool te mu sedd lool nag ba noppi nooy nepp xam nga sëriñ Saliou bu àggee bay jooy naan na ngeen ma jéggulu sama borom xam leen ni loolu moom jëmmi boppam taxul waaye ñun ñii ñoo tax kon nag kon nag ñu ngi soxna Sooda wax na ni mu ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la lii nag ay jëfam la mu jëm si ci bis bi nuyu baax sëñ Moustapha Cissé mii toog moom it nga xam ne moog sëñ Cheikh Bamba dañuy kenn rek foo leen gis jërëjëf ñoom ñaaray ànd lu ne ci Moustapha sëñ Cheikh a ko ci def na ko ñëpp xam ñoom ñaar daal benn lañ waaw loolu daal waaye yenn saa it yenn saa it Cheikh it yéen yéen ne ci dara. te fekk lépp seen seen seexa ñoom ñaar daal benn nañ inna la zina laak amanu nuyu sëñ Morlo bu baax ak sëriñ sëriñ Serigne Mamor Mbacke dende yi ñu ngi koy siyaare bu baax moom sëñ Ibra Khoudia sëñ sëñ Basa ngi waaj waa journée culturelle baa waaj le 6 janvier incha allah ñëpp danañ ñëw dende yi borom gi boo duyee bari ndox boo tojee bari xandeer ni sa maam nag am na sëñ Tuubaa loo xam ne kenn fekk siwu ko ci ni sëñ mu Ka da koo ne sa yaay ak sëñ bee bokk baay ni sa baaye man ci murit yi sa sa nijaay gën ci ku yàlla bind muy sëñ bi moo mu ne ko sa sa ndeyee sa ngi jigéen ni sa baaye man ci wile yoon waaye sa nijaay gën ñëwoon yow sa tëb tëbin gi kawe na loolu nag incha allah le 6 dañ la àggale ci dende yi sëñ Thierno ñaan mu sëñ Ibra ñaan jërëjëf. mbooloo mi. sëriñ Basiiru Mbàkke xaarim awa ba moo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di yëkkatiwaat ay kàddoom ci kàddu yi gàtt di sant soxna Sooda Siise mii di nit ku baax di koo xam ni day ab taalube yaroo ci biir kër sëriñ Saaliw ba jóge fa dem ñu jox ko Abdoul Aziz Diop bu Dagana di rakk ci ministre Omar Sarr waaye ak taalubeem wàcc ko ginnaaw benn yoon fu mu mën a nekk ci lu mën a nekk taalibe gi la jàpp ak pas-pas bi fokk njabootu Serigne Touba fonk ñëpp waaye rawatina soxna Baali mu Muntaxa ak njabootug soxna May sëriñ Modou Faty Khary soxna May nekkatu fi waaye mi ngi jàppale soxna soxna musli doomam di ko teral sëriñ bi nee na gis na fi Xaadim Njaay léegi mu ñëw di doomi soxna May bu defee lii wàcc na ndax waajuram wa nii la ko doon ànd ak sëriñ bi Soda Cissé di wóola réew ñooñu ñëpp waaye moom Serigne Bassirou Soda xaritam la nee na teranga ji teranga ju rëy la ci moom teranga ju kawe la teranga ju sedd xol la teranga ju rëy la wane na ni soxna Soda Cissé nit ku baax la ndax lii li nu jënd ci at mi ci moom lépp lii mu joxe mën na ni amatul bénéfice ca loola kon bu doon wut bénéfice du def lii mu def sëriñ bi nee na lii mu def sëriñ tuuba ak wóllëre ak xarit moo tax mu def ko nee na moo tax moom mii jàpp na soxna Sooda lu mu nekk nee na ma nga ca lu muy jaay sëriñ bi nee na dina dem jëndi ko di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko taxaw ko yamul ci joxe mbubu waaye da cee boole joxe li koy ñaw yàlla na ko yàlla defal jàmm soxna Ami Galas loo nag Serigne Bassirou nee na moom soxna Ami Galas loo mii toog gént moo ko boole ak moom nee na lii muy wax nag boo koy wax weesu na at ci àddina di wax loo xam ni lu neex nit lay doon nee na 2004 nee na booba xamul soxna Ami Galas Lo nee na xamul it turu Ami Galas Loo Gueye day dafa tëdd guddi gént ko faatu ñu def ko ci biir kees di ko jullee fi ñu koy julleewee naataayu verdure ba fa nekk nuro gazon bii ñu toog te gën koo rafet lool mel ni lu nekk ci tefes mu gis Serigne Fallou mu sol garambu bu calaw li gàccoo kaala gi jullee ko ba pare mu ni kii kan la ñu ni kii taalibeeb Serigne Fallou la ñu ni kii daa bëgg Serigne Fallou Serigne bi nee na ma ne ñu mu tudd ñu ni ko amiloo gay la tudd nee na mu xëy suba nee na Serigne Sidi Abdou Aziz Magam mooy seedeem mu ñëw kër Serigne Sidi Aslem ñuy añ nee na mu nettali ko seriñ Siri ni ko dafa am gént gu ma gént nee na Serigne Siri ni ko lan la mu wax ko gént gi ni mu demee nee na mu ni ko xam naa ko nee na jël téléphone am woo ko paas ko Serigne Bass nee na bis boobu la njëkk a dégg turu soxna si nee na ca suba sa la wax ak moom nee na kon moom mii bu ñu ko nee ami galas loo ku bëgg Serigne Fall la moom Serigne Bassirou Mbacke xaane aw ba mën na koo seede nee na noonu la gént gi demee kon sëriñ bi nee na bu soxna amiloo ñëwee fii day rafetlu jataay bi bég ci kontaan di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ne sëriñ Basiru nee na moom son ami lu sëriñ Basiru nekk depuis booba ba léegi du ñu réeroo ñoom ñaar jigéena xaritam la soppeem la mu ànd ak Ndeye Marie mii di liggéey ak Soda Cissé di xale bu baax moom tamit di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm sëriñ bi nee na mi ngi gërëm di nuyu Cheikh Mbacke Gadiaga mii toog seex nee na day léppam nee na barki démb dafa ànd ak moom sëriñ bi nee na mu ni ko yow astu sew oto bi nga ko jox muy yaay seex mi toog nee na ma ne ko lu tax bu la laajee essence nga koy fontoo mu ne ma sëriñ bi nag sa jigéen bi daa bëgg lu yomb bu dawalee ba lamp bi bëgg a xonq mu yónnee ko oto bi ni ko def ci plein sëriñ bi nee na ma ne ko loolu la doon ñaan yàlla waajur li muy ñaan doomam màgg ba di ko teral waajur woo gis muy dem kenn rek lay bëgg mu gën ko mujj ko ginnaaw muy doomam lu mu baax du doy ci moom lu mu gën du doy ci moom lu mu am njariñ du doy ci moom kon boo dundee ba yàlla may la loolu nga di ko def ci moom dañ koy rafetlu di ci bég France nga nekkoon démb la ko Serigne Bassirou jot téléphone mardi la ko jot téléphone ni ko Cheikh yow looy def France mu ni mu ni ko dama fee amoon yëtte waaye dinaa ñëw ci bis bi nu ma mën a def bisub Serigne Baara ñemewuma koo tardé ndax ni mu demee ak Serigne Bassirou kon loola wax na ko jëf na ko boole kook fu mu toll di jënd ay parfum di ko jox Serigne Bassirou léegi nii bi mu ñëwee teraanga la yëkkati jox ko ko te asgor góor nag bu ku la teral teral la ku la defal teraanga yeew la ndax teraanga rek la ñuy yeewee as góor kon Cheikh sëriñ bi nee na jërëjëf moo ngi lay sant di la ñaanal yàlla di ñaan Sénégal info yàlla na ko suñu borom yëkkati di ñaan direct news bi yàlla suñu borom gën koo dëgëral. liñ ci yéene lépp yàlla defal la ko ci te nga gën a góorlu te xam ni nit moom li ko war bu nekkee taalibeb sëriñ Touba mooy góorgóorlu lépp lu mu nekk mu ànd ceeg pas-pas ak yéene ak xel mu dal te ci loolu rek nga nekk jërëjëf Gajaga sëriñ bi nee na xolam sedd na lool ci yow yàlla na la yàlla defal jàmm bu ko defee ñu jox Seydou mu euh, wéyal kàddu gi su tabaski jotee man lay woo su korite jotee man lay woo alaaji foo ne bu ma dee diit diital sax mu ne ma ñàkkuma ku ma àndal de da ngay sama mbokk bokk ak man may def ci tra eh, mbokk gi teraanga su ma ko def loo keneen mu def ko waaye bu ñu la gisee ma taxaw nga taxaw ngay lawbe may lawbe ñu xam ni yellu na moo tax moo tax ma lay woo ma ni bëreet sol sama bu bu ne ko foofu foo nekk ma fekk la fa ma ànd ak moom muy wër ci pàkk yi vidéo yaa ngi ni sama téléphone di wër ci këri lawbe yi fu mu dem yëkkati ceeb ak diw ak enveloppe ni leen ni leen maa leen ko jàppale soo ñëwee fii ñëw ci sëriñ bi ñu lay jox kàddu ma ni patt ak loolu nga jëf ci mbokk gi nga xam ne bu am yéene woon naa bu ma amee doole jëf ko nga koy jëf boo ko jëfee bu mbokk yëpp teewee dinaa dinaa ko seere barki Seexul Xaadim Mbàkke waaw day jëf ci mbokk gi lu baax loolu moo tax ñi fi ñëw ñëpp bi mu ñëwee ma ne nag danaa sànni ay kàddu ci sëriñ seex ndax dama koo fekk noo ngi lay ñaanal sëriñ seex yow kat na la leer ne boo bari lee teraanga askanu maalaw kenn du ci tumburange ndax danga tëdd ba guddi ni ma nañ dawal oto bi dem ci diw dafa feebar nañ ko dem seeti te yow xam nga ni xam nga ni askan wi nu bokk bu nu gumbaa sax duñu yalwaan sunu ñàq la ñuy dunde bu nu xëyee ña ca pàkk ba jigéen ña ña nga yor seeni seeni seen i seen i yëf di yaxantu ñun buñ gumbaa sax duñu yalwaan sunu ñàq rek la ñuy dunde waaye ngay jàmbaar bokk ci biir askan wi noo ngi lay ñaanal ci doole yi sëñ Tuubaa sunu borom defal la tawféex Soxna Amy Lo mii toog nag ki ma tuddee sama doom muy Ibrahima Diagne génération automobile moo jàpp sama loxo jàpp Soxna Amy Lo ni ko kii sama jarbaat la sama xarit la sama lépp la su ñëwee fii di indil euh, sëriñ bi teraanga moom it mu joxe ko bi mu koy joxe ma jàng xasaayit woy sëñ Fallu war naa sànn ci moom ñaari kàddu loolu moo tax alaaj Seydou ma ma boole ko ci ngir day kenn ci ñun bi ko sama nijaay Ibrahima Diagne jàppee jàpp ma mi ngi may mi ngi may teral ci aw ñaqam soxna Ami yàlla na yàlla defal la tawféex barkeb sëñ Fallu alaaj Seydou sànq damaa yéene woon lu ma yéene woon bi ngay jox sëriñ bi teraangay nag yi ma bëgg a wax ma bëgg a wax ci nag yi ndax ma yow ñoo ànd ci ndigalu sëriñ bi leen xëy sëriñ maam Cheikh AS woonu ci suba ni ñu dem leen ITV barab sàngam def fa émission ban fa jóge nga nekk ci ndigal li waaye li ma wax mooy alaaji na gunge ma man la fan lan jëm fi mu ne naaj bi tàng na te añu gunu nan fexe nun nun barkeelo nga ni ma nañ dem ci ndigal lañ ne ma ne ma ne ma ne la xiifatuma ñu romb post caaro yi man la fan lan jëm xanaa kees bi demee ba fooraa nu jàdd ma séen borom béjjën yi ma ne xam naa ci ci ci daral gi leen jëm bin duggee nga woo sa waaju pël boobu di seet nag yi ni ko seetal ma xàbboon wu baax ay xàbboon yu baax mu tànnal la waxaale woo ma ne ko ma la Seydou lu tax doo waxaale ci pireeg yooyu nga ne ma ki ma koy jox moo toll noonu pël bi ni la nangam nga yëkkati fay la ma méboon nag sànq bi ngay joxe teraanga ji te waxuma ci bu ma noppee day mel ni li nga jëfal sëriñ bi man neexu ma te su ma amoon kattan gi bëgg naa jëfal sëriñ bi ndax sëriñ Basiiru kat ñun ñii di ànd ak moom teral nanu ba tàyyi yóbbu nanu ci barab nit teral nu gàmmu gi maag sëriñ Mandak saa yi bu nu ñibbisee sunu kër bor bun fa am ak bitig ba fu ca bitig ba la ñuy jubali fay ay dépasse fay nangam am luñ fa bàyyi dawaat seeti sëriñ Basiiru nun kon moom sunu lépp la loolu nga jëf nag sunu xol neex ci te ku wéet yaa gën a xam sa bopp nu xam ne li nga jëf bu nu amoon kàttan gi dañ koo bëgg a jëf mu neex ñu lool war na noo seere fii jëf ji nga jëf yaag Medoune Fall noo ngi lay ñaanal yow sunu jëwriñ nga sunu mag nga fee ñu nekk ca palier ba géejawaay da nga fay liggéey liggéey bu rëy te doo def dara te boole woo ma ci ngay sama mag di sama xarit yaa yaa tax ma ma jàppanteeg sëñ Bas yaa ma booleeg sëñ Bas ni ma ni ma ñëw bu ma génnee gaam it moo may moo may tegaat ci gaam kon alaaj Seydou noo ngi lay ñaanal sunu borom defal la tawféex bég nañ bu baax sunu xol sedd na munu maamun loo maa ngi lay siyaare di la ñaanal sunu borom defal la tawfeex yow sunu xarit nga sunu wëllëre nga sama jëwriñ nga bég nañ bu baax a baax. léegi nag nanu teewluwaat ndax kii ñëw su ñëwee lii war naa mën a mel nii ndax kii ñëw. mooy cheikh Samba Khaya moom cheikh Mamadou Lamine Baara cheikhu cheikh Baara ngi kii ñëw mooy cheikh Samba Khaya dernier cheikh di cheikh Mamadou Lamine Baara yow nag bi nga ñëwee ci bi wax say wax waaye bi nga ñëwee tey ku ne xam na ne la nga waxoon moom nga ñëw jëf si cheikh yow laay jox kaddu gi ndax yaa indi li nga xam ne mooy jàmbaar ji muy cheikh Samba Khaya cheikhu cheikh Mamadou Lamine Baara dernier cheikh a ngi nii toog ndax ndax ndax ndax xamal lu ma gën a neex ci jotaay bi mooy li Serigne Bassirou Mbacké Khady Awa Baax wax ñàkk ki ñaan lool ne may leen ma ngeen toog ci sama kanam ci nga xam ne mooy dernier cheikh mu toog sama kanam ngeen mën a jël vidéo yu leer kon kii ñëw Cheikh Samba mi fi mu jëm xam na ko te ñeme na ko sëñ Baara lay waaje sëñ Baara lay walle waaye sëñ Baara rek lay liggéey te nee na bis bii sëñ Bass danaa ko ànd ak yow ba mu jeex la nga waxoon firnde laan nga ko tey ndax yow doob ragal sëñ Baara ngay waaje <laughs> sëñ Baara ngay waare xam naa la ndax yow da ngay dugg ci àll bi